yi ñi ëpp importance Sénégal ci la bokk li koy wone mooy budget bi nga xam ne nii moom lañ ko jagleel <clears throat> iqra iqra damay déglu sermon yi yi ñuy wax ci télé bi ak ci rajo yi te li ma fàttali li ma retenir mooy Jibril bi muy wax ak euh, le profet de l'islam li mu ko njëkk a wax message bi mu ko njëkk a wax mooy iqra loolu mooy pourtant su neexoon yàlla iqra mooy jàngal jàngal pourtant su neexoon yàlla day sol ci prophète de l'islam bi xam-xam ak jikko bi mu bugg mais da ko ne jàngal parce que liy defar nit nit dafa doomu aadama dafa war a def effort pour jàng jàng moo ñuy wutale ak rab yi jàng mooy defar suñu diggante jàng mooy defar àdduna bon suñu bëgg xel mooy nit te jàng mooy defar xel bon jàng moo ëpp importance après bakkan jàng moo ëpp importance ku seetlu suñ société bi xam ne dañoo nekk ci crise sociétale grave boo xam ne nii dafa englobé politique mais dafa weesu politique ñeenti mbir rekk laay junj pour wone crise bi ñu nekk crise societal bi ñu nekk benn kaw Kaolack sulli nañ fa ab niiw lakk ko ay xale wër lakkkat yi di filmer di yuuxu loolu mosta am Sénégal en mosuma ko fàttaliku ñaareel bi attentat benn bistata tata ñu sànni ci cocktail molotov ñaari jigéen lakk ci béggaañ ñetteel bi ay xale dem es toujours toujours ci gaal yi genn wàll gi suuf ci ndox mi est-ce que loolu tekki am xaalis jar na ko ñeenteel bi loo wax ci rajo ci réseau sociaux yi ñu saaga la saaga kilifa diine yi saaga nit ñu baax ñi ci Sénégal loolu mooy crise sociétale bi ñu nekk te dafa englober et dépasser éducation ça veut dire que il ci éducation bi yar bi yar bi ñuy jox xale yi am na lu des loolu nag suñ taxawul xoolaat ko dans dix ans quinze ans musiba dina am ci ce pays sera ingouvernable man ñeenti école laa identifié loo xam ne ni nguur gi war na cee jóg l'école française ñaareelu école bi mooy daara yi ñetteelu école bi mooy apprenti yi apprenti menuisier apprenti mécanicien et cetera ñeenteelu école bi mooy mbedd mi mbedd mi mooy tali bi réseaux sociaux yi et cetera loolu yëpp ci mbedd mi la bokk am na lu ci baax am na lu ci bon il faut que nguur gi jël en charge ces ces quatre écoles la muy benn école